daal bu fa bu fa juddu woon fan yële passé jëm ci suuf suuf moom suñ ko tuddee ñëppay ubbi seen ay nopp di déglu euh, ñu tudd ci lu doy waar à Thiès ak benn accaparement bu yéeme euh, mbir moomu yéen doomi Thiès naka ngeen ko dundee. Euh, mooy problème mburkat. oui. non xam nga Mamadou Awa mbuurkaat bi def naan ñu bëre tamit amuñ ci information yu wóor quoi. Mm-hmm. donc ñu bëre euh, dañoo réere affaire mbuurkaat bi. donc même journalistes yi ñu ci bëre damay gis ñu ci bind mais xamuñ ci loolu xam nga mbuurkaat. mais c'est l'arrivée du président. voilà en grande pompe est-ce que moo indi loolu yëpp. effectivement parce que mbuurkaat boo xoolee ñaari lotissement la dafa am lotissement mbuurkaat ak lotissement aménagement de la nouvelle ville. Mm-hmm. nouvelle bi moom mooy Thiès Noto euh, ak Fandé ak. Euh, Kër Moussa ak Fandé ak Kër loolu moom mooy moo gën a nouvelle ville bi waaw mm-hmm. moom mooy deux mille huit cent hectares. hectares oui loolu tamit Dakar moom moo ko géré woon directeur du cadastre moom moo ko géré woon ak le directeur de de l'urbanisme. d'accord alors que Mbourkat nag foofu quatre cent quatre-vingt-quatre hectares la. mais 484 hectares yooyu nu mu ñëwee c'était des populations yoo xam ne dañu dëkkoon ci forêt classée bi. Mm-hmm. de façon illégale dëkk fi dëkk fi dëkk fi ba Macky Sall ñëw nag. bi mu waree inauguré la KMS 3. Oui. population yi takk seen brassard rouge ñëw ne Macky dañoo bëgg nga régulariser ñu. Mhm. ci la Macky Sall instruire le gouverneur mu def benn commission pour ñu xool affaire bi léegi nan lay demee après léegi Macky Sall euh, euh, régulariser leen bi mu leen régulariser mu créer léegi la zone de Mbourkat. Mhm. muy 484 hectares. 484 hectares yi dafa am zone bi nga xam ni zone d'habitation la woon ak zone boo xam ni zone de recasement la. ak zone bi nga xam ni zone la boo xam ni zone d'extension la. Mhm. zone d'extension boobu ma lay wax nag zone d'extension boobu mais sédd nañ ci le collectivités locales am nañ ci. Mhm. société civile am na ci journalistes yi am nañ ci gendarmerie am nañu les forces de défense sécurité am nañ ci enseignants yi am nañ couche yëpp am nañ ci l'administration am na ci. Mhm. Euh, mbuurkaat mais mais mais donc mbuurkaat boobu en tant que tel ne pose pas problème. peut-être li Dakar lañ ko doon gérer mooy ñi nga xam ne ñi nga dégg ñu naan am nañu ay treize hectares. oui am nañu ay six cent hectares et cetera. Hmm. loolu moom c'est la c'est nouvelle ville. d'accord on Thiès ñun soxla nañu ko quoi parce que Nouvelle-Ville boobu. oui Thiès la aussi exactement. amul amul amul gën a jege gën a yey. et puis dañ fa prévoir encore nouvelle ay activités yu bëri Thiès. Mhm. actuellement nii même les collectivités locales actuellement nii bu ñu amee ay partenaires actuellement dañu soxla ay zones économiques sociales. yoo xam ne dañ ci mën a créer ay structures ay mhm. industries yoo xam ne ci lañ mën a liggéeyee donc zone boobu tamit. collectivités yi soxla nañu ay espace yoo xam ni pour les gros porteurs mhm. amuñu espace boobu te ci zone boobu lañu ko yaakaar zone boobu soxla nañ fa tamit gendarmerie bu mag mhm. zone boobu soxla nañ fa stade continental mais zone boobu soxla nañ fa sax vraiment un hôpital de niveau un. Bien donc zone la boo xam ne vraiment war nañ ko delloo Thiès pour ñu def fay. justement avant pour que Thiès ay mën a liggéey foofu justement avant-hier on a entendu le premier ministre dire que ne récupéré nañ ay parcelles yu bëri. mais est-ce que juumul sax parce que nga di soixante dix mille parcelles. c'est énorme xëy na sept mille la bëggoon a wax. Euh, fi ma bëgg a jëm mooy euh, récupéré nañ ko mais aussi redistribution bi na tegu ci yoon. parce que aussi comme on dit gën a jege gën a yay ñi nga xam ne ñoo dëkk sur place. effectivement euh, voilà ngeen war ci jouer un rôle de d'alerte et de veille. effectivement effectivement comme nee nañu récupéré na nee na soixante dix mille parcelles la. Mm-hmm. soixante dix mille parcelles boo ko xaymaa à peu près ay mille la. Mhm, c'est énorme bu fekkee loolu ci ci ci ci euh, nouvelle ville bi la. mais loolu c'est. il a parlé de mais xam naa da koo kii rek. voilà da wax Mbourkat mais je pense que c'est la nouvelle ville. bi parce que foofu mooy deux mille huit mhm. fi xasee récupérer ay mille donc ce sera bénéfique vraiment pour euh, zone boobu ma lay wax. Mhm. mooy zone boobu nga xam ne moom la def nouvelle ville bi muy Thiès Kër Moussé Fandène. ak uh-huh. euh, ak et l'enjeu pour les lourds pour les gros porteurs. les lourds et autres voilà. mais, mais mais l'enjeu c'est quoi position géographique bi moo tax wala Dakar li mu fees ñu war ko désencombrer parce que Thiès actuellement c'est c'est couru en fait. non mais Dakar dafa fees dañ ko war a désencombrer parce que Diamniadio réglé wul problème la. léegi mm-hmm. il faut ñu indiwaat affaire yi ba Thiès. voire même génn Thiès sax demaat feneen quoi donc Dakar dafa saturé. Mm-hmm. donc Thiès comme jege na encore aéroport bi. jege na Dakar donc cees zone la boo xam ni parce que léegi Thiès ëpp la ko zone la boo xam ni. comme on dit ville carrefour la en fait. carrefour mm. la mm. dafa laaj infrastructure yooyu. Thiès dafa laaj ñu yokk sécurité bi mu am ay gendarmerie mu am encore hôpital bu mag de niveau un boo xam ni pratiquement toute la région de Thiès dañ fay mën di fajoo mu am tamit gendarmerie bu bees mhm. encore foofu ci zone boobu dañ ko fa dañ ko dañ ko fa soxla dañ ko fa mhm. bëgg mu am tamit une zone économique sociale pour les collectivités locales parce que collectivités locales yi tamit dañu soxla suuf mhm. suuf bi ñu soxla boo xam ni bu ñu amee ñoom ay partenaire mu ne leen par fii dañ fi war a créer terre industrie terre usine terre et ñu am suuf bu mën a liggéey donc lépp nouvelle ville boobu war na ko mën na war na mën a nekk opportunité. et ça va ça va contribuer à rendre l' économie plus attrayante. effectivement parce que économie Thiès aussi quoi qu'on puisse dire dafa xaw a euh, sooxe loolu. dafa xaw a sooxe ça va ça va ça va vraiment rendre attrayant l' économie locale surtout l' économie locale. Mm-hmm. économie locale bi dina dina dina développer. dina soqaliku moo tax zone nouvelle euh, ville boobu vraiment war nañ ci taxaw bu baax ba nga xam ni dina mën a accueillir ay infrastructures yu bëri ensuite il peut infrastructure dina régler le chômage aussi à Thiès. Mm-hmm. dina tax ñu bëri mën cee liggéey pour que Thiès mën a soqaliku parce que sur le plan de euh, de de du chômage aussi à Thiès tamit beaucoup de jeunes chôment à Thiès. mais on voit aussi que Thiès ba tey ñu ngi langaamu ci chemin de fer ak euh, NSTS bi. Euh, lu yàgg la. Mhm. Euh, est-ce que tey jii ni aussi war nañ continuer di ci langaamu wala jàpp nga ne c'est la solution ba tey. non c'est c'est pas la solution mën nañ ci jàppale parce que mën nañu wax pour ñu dooleel par exemple NSTS. Mhm. war nañ ko defaraat war nañ ko dooleel. ba mu ba mu. la la demande elle est textile Sénégal liñ ciy importé nga xam lu mu toll. mais dafa bëree dafa bëree moo tax industrie yooyu xam naa par exemple avec avec avec li nga xam ni moom mooy euh, avec euh, le nouveau gouvernement je pense que politique industrialisation bu ñu jël defe naa NSS dina ci jël mm-hmm. part bu important mm-hmm. parce que war nañ ko suqali war nañ ko defaraat pour que ñu wàññi importation yi nga xam ne moom la ñuy importer ci ci wàllu textile mhm. chemin de fer tamit comme li nga wax rek war nañ ko gën a dooleel gën a dooleel chemin de fer pour que euh, tamit augmentation pour que nit ñi tamit gën di fa liggéey parce que chemin de fer tamit dafa am solo ko surtout pour mhm. l'intégration même euh, sous-régionale am solo ko tamit war nañu xalaat tamit yeneen comme li ma la wax ci nouvelle yeneen industrie yoo xam ne war nañ ko mën a def pour que mu mën a pour mën a suqali vraiment l'économie téye ndaw ñu aussi sur place téye ndaw yi sur place quoi mm-hmm. parce que maa ngi wax même sur man mii di pharmacien maa ngi naan comme actuellement nii gars yi il parle de souveraineté je pense que souveraineté pharmaceutique dañ koy wax ñoom donc je pense que même nouvelle industrie pharmaceutique yi nga xam ne war nañ ko mettre sur loolu vraiment am na yoo xam ni war nañ ko mën a yóbbu sur la nouvelle ville ñu def ko Thiès foofu mm-hmm. bu ñu fa defee un hôpital de niveau un war nañ fa mën a def tamit les industries pharmaceutiques yi nga xam ne ñoom ñi ngi koy prévoir ñu ñu ñu installé ko foofu sur la d'accord mu doon lu